jërëjëf sama doomu nday jërëjëf yal na la yàggal si nga yal na la yàggal sa place yaa nu jàppale Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany góoru moomee ngoog chéri moomee ngoog kon merci i sa baay Ablaye lay wooy sa baay taalibe sëñ Moutala taalibe sëñ Moutala Alaaji Murtala Alaaji Ablaay la ñuy woy sa kenn da koo yaba waaw Samba Kura waaw waaw Alaaji bàcc Kuma Maajoor Alaaji bàcc Jóob jiitu na leen sànni war Mbay Moussa Lamar fa Demba Mbay Moussa Lamar fa Demba cey kii na sama waaji ba ci Diop gila Fatma kuma maajoor Demba awa Mbay Demba awa Mbay Demba ne awa Mbay Alaaji ba ci Diop waaw waaw Demba ne awa Mbay mbokki senegal Sénégal alaikum mbokki trifisi yi dikkati nañu ak yeen fi ci podrom El Hadj Ndiaye du job dimanche be passé ñu ngi jógee Louga stade podrom jubil djouf wa tay gis ngeen fi ñu ñew moy ci sky ben deuk ñaari gar may and ak Mar sama cameraman ak wa Sen TV tubaarkaal seen émission ndiabal aline bay tubaarkaal mol mool bi ma gis mol 2 ans la. mol 2 ans la waaw Cheikh. aline ki moy ndey Fall. bi moy Awa Fall. Awa Fall voilà dañ ko indi tay mu set ci plein de 2 ans yi. donc ñu yor ko tiwawan Pamatar mom ko. donc ñu préparer ko ñëw jéem xol rek euh, lan lay indi tay euh, comme ça ñu xam buñu yégué aussi lan lañuy doli wat ci mom dal est-ce que moom mën nga maa wax kan moy papa mom Awa Fall. waaw moom El Rachid mooy papaam. Ah, waaw El Rachid moo jur waaw. ngeen ñëw dal setti tay ji jii seen naataango yi. waaw tay dal dañuy ñëw mom setti ñom euh ñom taif ak ñoom. Euh, Cotonou 2 Cotonou 2 ñoom Mantulaay. waaw ñom daal lañu ñëw seet. ñoom Damel Teeñ fi lay xewé hippodrome El Hadj Ndiaw Macodou Diop borom gañay yagatul dara ci kanam tuuti ngeen gis lepp mu leer mool 2 ans yi ñooy daw maar sama caméraman laa àndal ak seen émission euh, TV ñu dem te ñëw. départ ba daanu na Baye Sall gars yi jóg nañu waaye ki may seen damel ak teeñ la damel teeñ génn waaye nag door nañ ko tunu nag mu génn Baye Sall door nañ ko tunu mu ñëw Aminou Ouma ñëw na Mantulaay ñëw na Mantulaay deuxième position waaye ànd naag damel ak teeñ tubaarkàlla macha allah Auguste dafa ñëw ci aras bi. def na kii génn. deux Cotonou 2 Cotonou 2 de minuit la ki deuxième position moi euh, Mantulay Mantulay fa ne euh, troisième position kooku mooy mooy Auguste waaw quatrième position moi Damalek Moi maa ngi ki nga le Buri ci bir groupe bi maa inna lillahi wa inna ilayhi ku amna ku daanu daanu Mantoulaye waa li yàgg na ci fas li yàgg na ci fas. oh dina jur jàmm Baye Sall xam nga li yàgg na ci fas tubarkalla macha allah joxe fas dawal nañ ko ba mu ñëw ba tableau bi ba war a raw raw ba pare tamponné ak beneen fas daanu dee. waaw Thierno mooy ko moomoon am na ci course Baye Sall waaye ki génn ba léegi mooy ku tunu Amin Momar ñëw na. Auguste deuxième position tawal nañ ki nga première Coutounou deuxième Auguste troisième ki nga xam ni moom Pendebouri. quatrième bi tubaarkàlla di damel ak teeñ ñi la course bi tëddee waaye fas daanu léegi tubaarkàlla Kumbaka Kumbaka moi, ànd ak ki nga xam ni jaloor tal ñoom nag li leen nga xam ni moom mooy mantulaay euh, Mar. na dem daanu met ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ah ñu gis la nga dawal ci fas léegi ci près de yi ah, te fas wi am na ay qualité yoo xam ne gis nañ ko ci moom ñu la loolu laaj qualité yi mu amee tubarkalla moom mi mihraj tubarkalla ak cosaanu fas wi. waaw mihraj euh, maamam mooy Soxna Diagne Soxna Diagne Birahim Taabaan moo ko moomoon Birahim Taabaan

ñoo bokk benn ndey kooku nijaay la ci Mihraj Mihraj rak la ci Altayir ñoom ñaar ñoom ay sept huitième la ñu. ñu toog sunu xarit suñu doomu ndey di Njambe Jéy ngeen gis léegi tubaarkàlla fas woowu nga xam ne moom moo daanu léegi di mantulaay di fasam Njambe ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh. Njambe ñu gis fas yi tey jii indi na état boo xam ni tey yàlla rek daal moo àtte waaye bu fekkonte si ndog-ndog boobu dalu ko woon mënoon naa raw première bu amul benn werante waaye ña ban xeetu entraînement ngeen entraîné fas ko fi wa sant yalla rek xam nga ñun mom wayal nañ ko ni ñu ko war a yaamee yàlla dogal rek da gën quoi mënon na gëna ñaaw tay fat bi ko xol xam xam ne nañ ko ni ko yor na état bo xam ne mosu yor mais yalla dafa def li gën def lool sant yalla quoi. di sant yalla lan ngay wax sa supporter yi nga xam ni dañoo bëgg fas wi. waaw di leen gëreum di leen sant rek wax leen ñu gëna jappalé li ñew moy mooy inshallah waye ki nga xamante ni tubarkallah nit ku yalla baxala di ngañ si laa dëkk Louga. teg la wa départ daanu jaana génn na gaa jaana génn na waaye lingeer bi laaj seen lingeer bi laaj seen lingeer bi génn na jaana sikkimu na ko waaye ki nga xam ne tubaarkàlla mooy coro dawal nañ ko ci aras bi Baye Sall kursu la boo xam ni kursu bu ibeeku la. ndeysaan waaye lingeer bi génn na waaye jaana mi ngi ko sëkkatal seex xoola fas yi ni ñu àndee rek ah seex. ñi dem Karaara la Baye Sall. ñi lay lay xoola fas gaa kii génn lingeer bi. Euh, professeur Jim Ndiaye ko moom waaye ki ko deuxième mu jaane bàcc sama kuréel jooba ko moom ki nga xam kenn maar kenn door waaye ki nga xam ni mooy jaane nag léegi ñëw na ci lingeer bi jaane jàpp na lingeer bi jaane génn na jaane génn na waaye ki nga xam ne tubaarkàlla mooy Moussa Diop mooy troisième position Moussa Diop waaw waaw waaye nañu def naag ci ki nga xam ne mooy Moussa Diop nañu def naag ci ngërëm waaye nañ def nañ tubarkaale ci Nasrullah Nasrullah xam nga Baye Sall dafa am ay fasu deuxième tour yu ma ci gis ku ci mel nii Nasrullah fasu deuxième tour la Moussa Diop fasu deuxième tour la Big Boss fasu deuxième tour la ah. ngërëm day ñëw waaye Darda si dafay dikk waa Diané lii la baaxoo ah. xam nga Diané joxe na cinq longueur doomu noble père la noble père Zaytel Zaytel tubarkaal la Samba Kouré Diop ko moom moom la ñuy bàkke tubarkalla gile gile gile far na Kumba Maajoor maram ngalgu Demba na Awa mi nu yoole kuul xanaa fii rek laay tubarkalla di nuyu Aminta Diop ndey bu naam ma Diop tubarkalla doomi njaw ma koddu ji kooku dardas la ma katirem nasurulaa wante bi tëddee ci groupe 2 bi fas yi nga xam ne tubarkalla macha allah ki ci nekkoon favori numéro un di Diané Diané moo nekkoon favori parce que boo xoolee depuis bi ko sibbee ba léegi moom moo leen ni raw Diané ko raw yëpp mooy lañ def ëppan mu jugee ci groupe 2 bi dem ci groupe 1 bi loolu moo tax ñu raw ko waaye tubarkalla li yàlla tey nag lii la dogal Baye Sall tey Dardas yoot na ko ci 200 mètres bi. fi la ko def ci 200 mètres Cheikh sama yaram daw na. yaram daw sama yaram damaa jooy Cheikh. <laughs> Baye Sall Cheikh damaa jooy man fas yi daf may fàttali tubarkalla maam loo. jaara daf may fàttali capitaine Thomas Sankara daf may fàttali lay fay. Papa Sall ak Cheikh Ndiaye. waaw ñaari doomi perte naa yi. kii dëkk Beex kii dëkk Thiawane. lépp di Kajoor. Toile Fakal lépp di Kajoor. waaye nag Toile Fakal la ah, ah, ah, maar maar mi nga xamante ni moom moo jàkkaaru gën moom du bàyyi dara. maar maar maar nee na léegi toxu na peex la dëkk peex la waaw maa ngi yàgg naa peex. maar léegi peex la de. mais maar léegi daa fuuy. yaa ma ko wax maar ma noon nga maa yëgal loolu ma ñëw ca maar mere naa la waaye maar ñu yëg ci kaw rek jël prix te ñëw Baye Sall. dëggal Baye Sall nee na maar am na soxna si jongoma soxna si jongoma <laughs> waaye ñu yëg ci kaw jël leen prix bi te ñëw. di toog Baye nii sama papa la ak moom père Diop tubaarkàlla ñii nag dañoo ad waa mani salaamaaleykum. waaleykum salaam. mais père lu ngeen xam ci course Tivaouane bi la neex rek ci bi di kagul li mais tax mo neex di ko neex mo mo raw li ah. moy raw li tudur xam nga tudur mo koy dak wa gor gi yow sa yow sa papa amono ay fas tubarkalla te gisatun keur ga ami fas wa legi ñu lool ñu naka lañ koy doxal yel ñu ban jangat lañu mëna am ci lool lu tax du gene yow ay fas ngir xara yi ah, waaw ah loolu de ñi ngi nuyu mbooloo mi di la nuyu di la ziar di la ñaanal gis nañ sa taxaway ci ci ci course yi yow mi bo nekk ci course di ci wax lula war la ndax seen kër googu da nga juddou fekk fay fas manam lu jitu Thomas Sankara fas dafa daan yewé nga juddou fekk fay fas fas nak mom do na fi bo xamni ñun yoruñu ko waye melna ni yor nañ ko ndax mom rek la ñu bëgg mom rek mënu nu taxaj a ñi ngi ñaan nak ñi nga xamni ñoo jité kursu bi nañu dimbali nit ñi ngir yalla gaay yi nga xam dañ leen di inviter invitation rek mo leen di indi kursu bi ñun ñi amateur yi nak kursu bu fu tëgg ñu dem bu neexee ñu dem bu naqaree ñu dem bu tawee ñu dem bu naajee ñu dem kon nañuy dimbali ñu jéem a satisfaire bu ñu takkee fas yi ba war koo dawal nañ leen dawal heure bi parrain yi ñëwee luñ ci fekk xam ne loolu lañ ci fekk waaye toog plus de deux heures de temps fas yi takk fii di doxantu ba nit ñi toqi loolu rafetul jaaduwul ci ñi nga xam ne ay amateur lañu loolu daal mooy li nga xamante woon moom amateur yëpp am nañ ko aw naqar tey jii moom laa ne woon ma yàllaa ma dimbali rek ba nga ñëw xaw ma indi xaw ma jinnee la indi xaw ma lu la nga ñëw damay yëg damay yëg dama am yëg-yëg man yëg-yëg boobu nga am nag ñi ngi la ci sant di la gërëm li nga bëgg ci sa liggéey bi yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal jàkkaarloog Bac Diop Samba Koura kenn gënu ko gile Fatma Kumba maa joor maram ngalgu dem maa ne awa mbay mi nu yoole kuul Baye Sall dama la wax ni way wuréy wii ku deful dara doo ko dégg xam nga olof Njaay def nii bàmmeel mën naa yekk lex waaye fi lay bàyyi jëf ak nettali xoola xoolal ñoom Kodo ba mu demee léegi waaye xoolal way wu rëy mu ko gars yi way El Hadj Abdoulaye Nar Samb yàlla yoo xam sax. Abdoulaye Nar Samb moo ci ànd ak tubaarkàlla Ali Baté Mbuub ànd ceeg Samba Jabare cak ànd ceeg tubaarkàlla ndaanaan yooyu nga des ni danoon newoon fii ci réew mi tubaarkàlla tey def lu baax waaye mën a wax lu baax it nag ah. waaye ñu ngi jàkkaarloog Bathie Samba Coura dem maanaam mbay mi nu yoola kuul Ibra déggal tanoor maamam moom la ñuy ko Ibra déggal tanoor ak Awa Sahir déggal tanoor Bathie Samba Coura yokk na ko seex dégg ma ne de Baye Sall nga ni ma ne lu fi naa dégg moom rek moo tabax immeuble ñu yaakaar ne ko la koy defal mu ne naaru laa koy defal ah. kenn Bathie Samba Coura la ilaha illallah Baye Sall hippodrome bi ne tey njaw ma kott lañ ko duppee Bordeaux mbii nu taxaw tey tubarkalla macha allah Iba ñaama ko bi ñu dippee Iba doom bi dafa am doom ju ñu wax ndey bunaama mu dippee woon ko ndey bunaama un moom la dippee woon kañaa ba ndey bunaama un ndey bunaama deux waaye ndey bunaama moomu benn saison moo ci am trente de deux deuxième trente deux mu nekk fas loo xam ne wenn fas doon ko defati waaye ndey bu naa ma sama xarit bi maa ngi lay nuyu ma nga foofu ci asalam Grand Yoff de koy nuyu sa baay def na lu ne ci réew mi di ko mag waaye kenn ko ëpp lu nekkoon ci doomu kóod mi ngi ci Aline Diop ko yàlla la fa cat amin ta jot doom ma nga fële ca États-Unis koy nuyu bu baax waaye Fatma Kumba maa joor maram galgu ak dem awa mbay omo Ousmane Camara Ousmane Camara oh Ousmane mooy góoru suka tey maam Fatou mu ma kootu ceeb bi mu togg jën bi mu jënd ci kenn bi rek 35000 la ko jëndee. fi ne yaramu gars yi tàng na jër la gars yi jóg nañu si. daanu na ay waay maar sama cameraman jërëjëf seen TV seen émission jaabal kabar nañ jàkkaarloog ñun kii génn mooy Jaliñ Koor deuxième position Abdou Samad troisième position Arif waaye maa ngi ki nga xam ni. moom mooy macha allah maa ngi seen macha allah laa ilaaha illallaah sama a ngi daw manit Baye Sall jooy naa seex maa ngi jooy seex sama xel dem na ci Ablaye Naar Sam laa ilaaha illallaah xel dem na ci Alaaji Ablaye sama xel dem na tabarkaala ci mag ñu baax ñi fi nekkoon laa ilaaha seex maa ngi jooy groupe Mbaboor ana ñu waay groupe Mbaboor bu ñu nekk ana waa Peex ana waa Peex ana Baba mbay ana Maas Mbaye fu ñu nekk ana Moori mbay fu ñu nekk ah seex ana gaay fu ñu nekk dari koor génn dari koor génn mi ngi jàpp ci kanam nag léegi Baye Sall dawal nañu macha allah ngi avancé macha allah ngi avancé. macha allah ngi ñëw. macha allah ngi avancé. macha laa ilaaha illallah. laa ilaaha illallah. macha allah ñëw ñu ànd ak Baara. général Baara bu ma bu ma woon di laa ilaaha illallah. macha allah ñëw na. ci kaw ci kaw Dalinkoor. macha allah Dalinkoor. macha dawon nañ général Balla mu 5e position ba leg dal koor mo genn ba dal koor bëgg ni koor bañ ni koor ibe ko di macha allah ñoo ngi ka tournal dakar lok nañ ñun dal koor doomu dana kër la machallah la ilaha illallah machallah dal dalañ dalañ koor machallah machallah machallah machallah rawna deuxième dal koor troisième Mazor quatrième Darou Sam cinq euh, cinquième Adja Kole Fall. xool sedd si na tey. non man lii jarul sax ñu wax. wax ma dama bëgg tey nga wax ma tey ban ban li ma dama kaa doon. dégg naa waaw barki borom Touba. leer na ma dama koy raw teel naa a wax sama patron. barki Serigne Nicolas. man daal di ko maa njëkk a wax maa koy njëkk a raw. man man daal di

notabilité yi nekk Diamniadio yëpp ñëw loolu wone na ni vraiment Diamniadio lii ñun ma jagleel euh, ànd nañ ci nangu nañ ko euh, dañuy ci kontaan bu baax a baax nag di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ba ñu continuer accompagner euh, course yi boo tax taxaw nanu ci war a nangu lépp lu ñu xam ne lii bëgg nañ ko ci nun pour ñu jàppale course pour ñu jàppale fas en tout cas def nañ première édition dañu ñaan yàlla ñu fi ak pour continuer di euh, def euh, journée bi taxaw journée distance 2200 mètres. C'est gars yi jóg nañu duma nañ ko. door nañ very good tubarkalla macha allah laa ilaaha illallah very good moo génn Altaï mooy deuxième position troisième position ki nga xam ne moom mooy Altaï ànd nag very good Baye Sall Altaï altaay moo génn nag bopp fi mu ne nii waaye Vergoune bañ na. Vergoune bañ na Cheikh. Vergoune bañ na. Cheikh Vergoune na. altaay génnaat na bopp. altaay génnaat na bopp. ñoom ñaar doon nañ benn fas nag léegi. Baye Sall waaye Vergoune génn na nag léegi. Vergoune nag war ta tele daw. doomu tooye moo rek ak doomu El Django. tubarkalla war ta tele ay daw. war ta tele daw position duma yéen la. waaye yeneen fas yëpp tubarkalla. danoo njiit la njiit lam golo ki nga xam mooy Alfat moo moo ko jiiteel nag. waaw tunaal ñoom Kordu rawante bu nar a neex waaye Daaru Khoudoss lay seen Daaru Khoudoss moo nekk sixième position waaye nañ def naa ci Daaru Khoudoss de ndax maa ngi seen faydu nekk cinquième position te fas yi tey jii dañoo nar a daw Baye Sall ba gën ba gën réew mi. a daw ba gën réew mi si yi ñu tegaloo gars yëpp seen gars yëpp jóg nañ taxaw. laa ilaha illallah ñoo ngi jàkkaarloog ñun bu ñëwee dañuy dellu ba léegi very good moo génn léegi nag du ma yeen dikki la deuxième position waaye xoolal Daaru Xuddoos dawal nañ Medina mu ñëw troisième position du ma yeen dikk na dawal nañ nga xam mooy faydu mu ànd ak Medina waaye Daaru Xuddoos nañ ci aras bi Daaru Xuddoos nañ ci aras bi Daaru Xuddoos nañ ci aras bay bay sall waaye ki nga xam ne nag moo génn mooy mooy mooy mooy mooy duma yéen. duma yéen mu Iba Kole Baaw. yooyu yam Badio Maane ma segg jaayu na. waaw waaw loolu war naa mën a ne. moo génn. moo génn. waaye dawal nañ ki nga xam mooy Medina mu ànd ak mu ànd ak mu ànd ak faydu Medina dikk na ànd ak faydu Medina ñëw na en tête nag léegi Medina dikk na en tête Baye Sall Medina génn te moo leen raw Louga ah? waaw Louga moo leen raw dawal nañ daal Khoudoss taw nañ baar xuddos maxa ñëw na maxa dikk na maxa dikk na waaye ba léegi Medina génn na Daar Xulóos jàpp na ko Daar Xulóos génn na Daar Xulóos génn na Daar Xulóos génn na laay laay la dawal nañ Daar Xulóos mu ànd ak Medina waaye ak maxa ak ñaxam mooy mooy faydu ñoom ñeenti fas yi tabarkàlla ñu ngi ci 200 bi laay laay laa maxa ñëw na maxa diki na maxa ñëw na maxa ñëw na maxa faydu maxa dikk na première maxa deuxième faydu troisième daar xulos quatrième médina laay laay laa yaram daw na ci rawante bi nga xam ni moom la groupe 1 daa rawante léegi nii ci diggante ki nga xam mooy daaru xulos diggante faydu diggante ki nga xam mooy maxa ak médina depart bi daanu Papa Diagne départ bi dafa daanu ñu door verigoutte mu génn mu mel ni dafa doon dafa doon rayanteel ki nga xamante ni moom mooy duma yéen waaye demu yéen la ñu bëggoon ci moom dafa mel ni antuwul bi ñu ba ci 200 mètres bi gis nga maxa daf leen a yoot yoot ba ki nga xam mooy Medina ak nga xam mooy mooy Daaru Xuddoos bu Abdou Xaadir Mbaye Papa Diagne ñoo jàngate rawante bi. waaw Cheikh rawante bi tey dafa ubbeeku ndax ay chevaux de valeur lañu nga xam ne moo raw di maxa doomu seen Fignes Mey la waaye yaayam Jama Cissé doomu Abou Sofiane la nga gis deuxième bi nekk Faydou moom doomu Arkadis la waaye yaayam Belfi doomu Demendor la ki nga xam ne mooy troisième ki nga xam ne mooy troisième nag moom moom mooy Medina Medina doomu watar yaayam doomu watar maloo la waaye Medina moom doomu Soray Daminu la ki nga xam ne nag mooy quatrième moom mooy Daaru Xudoos moom Xudaa mooy yaayam Xudaa yaayam doomu Arkadis la waaye Daaru Xudoos moom Kasanul mooy baayam cinquième bi moo nekk ki nga xamante si nii mooy Miroir Miroir nag moom xam nga ni Escargot Park moo ko jur Escargot Park doomu Notion Park la waaye yaayam Tawfeex doomu yaayam Tawfeex doomu Garouza la Cheikh loolu mooy cinq premiers yi nga xam ni ñoo arrivé ci groupe 1 bi jërëjëf Papa Diagne waaye Baye Sall Baye Sall rawante bi gis nga ni mu demee fii ci podrom El Hadj Ndiaw ma ko du jóob borom gañaay ndeysaan Cheikh euh, rawante bi daw na yaram bi gars yi départ ak ni ñu teere sama yaram dafa daw dama xam naa li ñuy waaj a dugg ci koor gi moo tax course bi moo dàq ci course yi. dëgg la course bi tey yaram yëpp a daw. Modou moo Guèye. Modou Moulay Guèye. grand prix bi neex na maire de Diamniadio. waaw loolu seex noonu lay mën a mel El Hadj Guèye mi woote dégg nga maam dawalal ko course El Hadj El Hadj Doudou Guèye ko jur El Hadj Doudou Guèye nag moo ma woon Jokamaay ak fils Jokamaay ak Moustapha Samb El Hadj entrepreneur la di xale bu baax di xale boo xam ne bu am avenir la ci réew mi di nit ñu bëgg nag ci réew mi di nit ku am solo di nit baax. 1965 moom Alaaji Gueye moomu baayam tubarkalla moo raw ci fas yu ñuy wax jogomaay waaye mbokki amateurs yi mbokki téléspectateurs yi seen xarit Baye Zal ak Cheikh Ndiaye ñoo ànd ak yéen tubarkalla waa Thiès waa Thiès info ngi nii tubarkalla waaye ñuy wax rek ni ñoo gërëm ñëpp di gërëm amateurs yi di gërëm propriétaires yi ak jockey yi waaye Mar bu seen TV sama caméraman maa ngi lay san di la gërëm. seen émission jaabal di wax rek ni émission bi. émission bi toj na réew mi ah. émission seex léegi ñëpp émission jaabal la ñuy xaar. xanaa di nuyu Isaaxa Kayta. jaabal la ko yor ah. jaabal la ko yor Isaaxa Kayta Khady Niane Ndiaye. borom boutique bu riche boobu ca zone A village numéro 2 A borom sañse yu rafet yi Khady Niane Ndiaye moom ma sañsal tey jii ni ma tey bàyyi yére olof yi nga dugg fii maar sama caméraman ñu wax ni émission bi bu dimanche ak jàmm ñu dëgtal leen ko.